juróom ci Parcelles Assainies ñeent ci jamnaajo Kër Mbay Fall ak Dakar Plateau ñett ci Almadi achelem ak Grand Yoff ñaar ci Géejawaay Cité Takko Sangalkam Liberté 2 Liberté 6 zone de captage ak HLM benn ci Médina Fann Amitié 2 Castor Liberté 3 Mermoz Yoff Ngor Ouest Foire Sicap Foire HLM Grand Médine Patte Kër Mbay Fall Mbao ak Caaroy Azur ci yeneen région yi am nañ ci juróom fukk ak juróom benn lim bii la tëddee ci région yi juróom benn ci Saint-Louis fukk ci Mbour fukk ak benn ci Mbour juróom-ñett ci Tiwaawoon ñett ci Touba ak Kédougou ñaar ci Fatick Kolda Popenguine ak Thiès benn ci Daara Foundiougne Louga Médina Yoro Fula Passy Richard Toll ak Thiadiaye ñaar téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñeent ci mala yi ñu toppoon ci biir hôpital yi ñi nga xam ne ñoo entrée woon hôpital ak ñi ñu toppoon ci biir kër yi wér nañu bés ni ki tey dinañu génn bu ci yàlla àndee juróom fukk ak juróom benn malade ñoo nekk réanimation juróom benn malade ñoo ñàkk seen bakkan bésu démb dibéer ñaar fukki fan ak benn ci weeru février mi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital wala ñi topp ci biir kër yi ñu ngi am tànn ci bésu tey dalee ko ci kaw bu njëkk ba Sénégal wëññi na fanweeri junni ak ñett ak juróom-ñeent fukk ak juróom ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu ñaar fukki junni ak juróom-ñaar ak ñeent téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñett wér nañ ci juróom-ñett téeméer ak fukk ak ñeent ñoo ñàkk seen bakkan mu des ñeent junni ak juróom-ñett téeméer ak juróom fukk ak juróom-benn si lalu hôpital yi ak malaat yi nga xam ne ñu ngi leen topp ci biir kër gi.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 calendrier aussi yi la agent de santé yi di la jox ministère la santé et de l'action sociale mu ngi leen di sant di leen gërëm wasalaam